amoon na nag bés ay farisiyen ak ay xutbakat yu jóge yerusalem ñëw ci yeesu ñu gis yenn ci taalibeem di lekk fekk seeni loxo setul maanaam raxasuñu woon ni ko aada santaane farisiyen yi nag ñoom ak yawut yi yépp dañuy topp aada yoon yi maam yi tëral te fandeel leen gën a lekk ak loxo yu ñu raxasul te bu ñu jógee pénc ma suñu sanguwul set duñu lekk am nañu it yeneen aada yu bari maanaam ni nga war a raxase ay kaas ay njaq ak ay satala ba ñu laab noonu farisiyen yi ak xutbakat ya laaj ko ne lu tax say taalibe duñu topp aaday yoon yi maam yi tëral waaye ñuy lekk ak loxo yu setul yéesu tontu leen esayi waxoon na bu baax ci kàddu yàlla ci seen mbir yéen nafeq yi bi mu bindee xeet wi ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xool sori na ma seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale dénkaane nit kese yéesu netti leen dëddu ngeen ndigal li yàlla jublu ci aaday nit mu teg ca ne leen xelu ngeen ci tebbi ndigali yàlla ngir sàmm seen aada ndaxte musaa nee na teralal sa ndey ak sa baay teg ca ne ku moolu sa yaay walla sa baay des na la rey waaye yéen dangeen ne ku ne sa yaay walla sa baay li nga war a jariñoo ci man korbaan la maanaam jébbal naa ko yàlla dootu ko bàyyi mu defal dara ndeyam walla baayam noonu tebbi ngeen kàddu yàlla ndax seen aada jingéen di donnante te it yéen a ngi def yeneen yu bon yu mel nii noonu Yeesu waxaat ak mbooloo mi ne leen yéen ñépp déglu leen ma te xam li ci biti tey dugg nit du ko mën indil sobe waaye liy génn ci nit loolu mooy indil nit sobe bi nga xamee ni jóge nañu ci mbooloo mi dugg ci kër gi taalibe yi laaj yéesu mu firi leen wax ju làqu jooju yéesu tontu leen ne ndax yéen itam seen xol dafa tëju xanaa xamuleen ne dara lu jóge biti dugg ci nit du ko mën a indil sobe ndaxte du dugg ci xol waaye ci biiram lay jëm ba noppi daldi génn ca barab bu làqu ci li mu wax loolu yeesu daganal na bépp ñam yeesu ne leen nit yi li génn ci nit loolu mooy indil nit sobe ndax ci biir ci xolu nit la xalaat yu bon di jóge ak ndoxaanu yàqute càcc ak boom njaaloo ak bëgge coxor naaféq ñaawteef ñeetaan saaga réylu ak jëfi ndof lu bon loolu lépp day génn ci nit di ko indil sobe ginnaaw loolu yeesu jóge fa jëm wetu dëkku tiir bi mu fa àggee mu dugg ci kër te bëggul kenn xam ko waaye jataayam mënula umpe amoon na fa nag jigéen ju rab jàpp doomam ju jigéen bi mu déggee ne yéesoo nga fa mu ñëw daanu ciy tànkam fekk jigéen ja ci xeetu grek la bokkoon juddoo wàlli finisi ci diwaanu siri noonu jigéen ja ñaan ko mu dàq rab wi ci doomam waaye yeesu ne ko na gone yi jëkk a lekk ba regg fab ñamu gune yi sànni ko xaj yi rafetul jigéen ja tontu ko waaw sang bi teewul xaj yi di lekk ruusit yi rot ci lekkukaayu gune yi ci kaw loolu yéesu ne ko ndax wax jooju demal ci jàmm rab ba génn na sa doom noonu mujj bi fekk doom ji tëdd cib lal te mucc ci rab wi bi loolu amee yéesu jóge na weti tiir jaar ci wàlli dëkku sidon dem dexu galile ba noppi dugg ci biir diiwaan bi ñuy wax fukki dëkk yi foofa ñu indil ko ku tëx te dër lool ñaan ko mu teg ko loxo noonu yeesu yóbbu ko ba ñu sori mbooloo mi mu def ay baaraamam ci noppam daldi tifli laal làmmiñam mu yërëm ko ba bind ci xolam xool ci asamaan daldi ne efata li tekki ubbiku leen ci saa si ay noppam daldi dégg te làmmiñam yiwiku muy wax bu leer bi mu ko defee yéesu tere leen ñu wax ko kenn waaye lu mu leen ko gën a tere ñu gën ko ne siiwale ñu waaru lool naan lépp lu mu def lu yéeme la may na sax tëx yi ñuy dégg ak luy ñuy wax